moo ko bàtti li mu fi indi réew président Macky Sall dafa am taxawaay bu ci pouvoir taxawaay bu ma xam ne yéen ñëpp da ngeen sawal président Macky Sall bu jógee seet si Serigne Cheikh Mountakha Bachir président Macky Sall moom ak yoon yooyu ko suñu kilifa nekk suñu kilifa nekk na suñu kilifa li tax mu def nag parce que Serigne Mountakha Mbacké Bachir mooy Serigne Touba tey ci kaw suuf waaye li tax mu def ko aussi mooy Touba mooy Sénégal Sénégal Touba c'est la capitale du mouridisme dama ne ko fonk suñu kilifa fonk suñu dëkk bii nga xam ne amuñu lu dul moom. président Macky Sall mën na ko dalal ndigal mënul ci seen kàtt waxtu jot ñu jël carte bokk poste bi sànnil ko loolu la ñu mën a doon bu koy président Macky Sall ne man day murid la taalibe Serigne Touba la aw ma ku dul Serigne Touba murid yi amuñu lu dul Touba ñu ci si yàlla si ñoom ñoom la à chaque fois bu ñu woote dama ñëpp dañuy jàkkaarloo ak ñoom dañuy jàkkaarloo ak ñoom mu xool ñu xool ko mais bu ñu ko gañee dañuy am bés. te de woote na benn yoon ñu gañe ko woote na ñaar yoon ñu gañe ko mais taxul mu wàññi dara dara bu dara dara ay ci liñ def ci suufa ak ñu jàpp kenn mu jàpp si ñu taxaw ci wala xanaa bépp burusul tëb xanaa bépp burusul tëb déedéet ku leen Sëriñ Tuuba muy jéem a wax benn ku ñu la barke wala yaa fi ñu la dañu war a delloo si xel yi seet bu baax li muy def Sëriñ Abdou wax na ko te wax na dëgg bu ñu may nopp muy des xel xel nit ñi bu ñu may nopp mu ne dara dañoo réer te gërëm gis nga ko réer te gërëm moo jotee wax boo ne ko président yi nii mu ne la fii saaru la nga ne ko fii tànnal la mu ne non fii saaru la gars yi dañoo gërëm bëgg a gërëm yow Sénégal yi am na ñu nga xam ne bu leen yaatee ci réew mi ba ñu toog ba dëgg daan jëlee ci ñu nga xam seen njëriñ mënu daal lañ ci wax mënu rëy lañ ci wax mënu daal lañ mujj lañ ci wax dañu ko jaar ci jaar suba ma toog rek dem dama ne ñooñu war ñu leen yaatam ci réew mi war ñu leen yaatam ci dëkk bi dafa jot nag ñu ngi jóg wax ak ñoom ñu ngi jóg yéen ñi Sénégal ñu ko bokk kenn mënu ko xam ñaar kuy politique politique ku bëgg nguur bëgg nguur i nag c'est à travers les urnes carte boobu président Macky Sall carte boobu président waaye bu force la fi jógee xale yi dem ngeen taal dem ngeen yëngal dem ngeen yëngatu pour seen problème personnel bopp xale lakk ba gis bu leen lankee li koy faj nag mooy ñoom fii la ñu ne seen dëgër laay département Mbacké la ñu ne seen dëgër Dapat menambahkan il est temps que ce département-là tourne le dos à l'opposition, parce qu'encore une fois, l'opposition ne mérite pas que le département de Mbacké soit avec elle. Loolu la population Mbacké yi moo war a jóg xasee takku tubéy dina loolu Cheikh Abdou maa ngi lay encouragé. Vous menez un travail méticuleux, un travail sérieux. un travail de contact avec les populations, avec les groupes étudiants. un travail auprès de certains de voix. Et ce travail-là aussi va apporter ses fruits. maa ngi leen di maa ngi gërëm di nuyu seen gàllankoor di nuyu seen Matar Diop di nuyu soxna Rokhaya Diop Rokhaya Diouf di nuyu l'ensemble journaliste bi ma leen di journalisation bi ma ma yaakaar ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di xaabaar ku ñu mbooloo jiw wala nga doon nga doon matal kontaan naa ci yéen mosut ka maa ngi lay félicité ton engagement maa ngi lay félicité bu ma baax pour ton engagement parce que les responsables de Touba et de Mbacké waaw département bi jafe woon mais li mu gis man tey euh, depuis euh, maintenant bi campagne bi démarré ba tey li ñu gis doy nañu parce que ya a y a une dynamique d'abord unitaire tous les responsables se sont retrouvés benn beneen bi mooy on s'est rendu compte que ne yi que discours que euh, opposition bi discours populiste rek lañ doon distribuer population yi maanaam rien de concret tey ñoom waxuñu dara loo xam te ni dal na xel population yi te loolu vraiment jeunes yi sax ñu koy commencer di constater ils sont conscients il faut président Macky am majorité à l'Assemblée nationale stabilité am ci réew mi bu tax maanaam richesse yi nga xam te ne bii tey mi ngi nar a juddoo ci ci ci pétrole ak gaz bi ñu annoncé ci réew mi ñu président mën ko def mu nekk njariñu askan mais boo dégloo opposition bi seen discours le discours va en guerre ni ma koy waxee wax loo xamante ni bii toujours buñ génnee manifester sax nit dee wala deret tuuru loolu tey population yi ñu ngi commencé di ràññee di xam ne loolu du Sénégal Sénégal tey dañu jublu ci jox président Macky Sall majorité parce que projet yi nga xam te ne bii commencé na ak yi ñëw benn bañ ci am blocage parce que tey boo dénkee euh, benn nombre de députés à cette opposition bi nga xam te ne bii li leen caractériser mooy immaturité leen gën a mooy immaturité amuñu amuñu expérience politique amuñu expérience état tey ñooñu jarul ñu dénk leen yenn yenn en tout cas yéen ñu kenn du leen dénk les destinées de ce pays là. wax tey ñëw fi renforcer ñu aussi ba pare wax loolu kon donc li ñuy gën a def rek mooy ñu booloo gën renforcer li nga xam ne moom lañ doon def ba aujourd'hui trente et un juillet ñu a am dam waaw xam nga activité yi ñu def ci ba léegi xam nga bi ñu taxawee ba comité électoral bi taxaw ñu jël par carte bu nekk am ay zone am ci biir ñu def ay comité de ñu suñ comité bi fii man maa ko jiite man maa président bi quoi léegi nag ñun ñu def ay proximité di dajale nit ñi di wax ak ñoom biir nag après bu jàng faga président la république dafa waxoon ko de Touba parce que Kébémer mokk na waaw dañ loolu waxoon ne ma ko ma danaa saf sàpp Touba ren waaw mu ne ba def benn affaire mu woo ma ne ma léegi ñu def meeting Mbàkke ma ne ko ma ne ma ko a wax mu woowaat ma ne ma ko c'est bon comme ko ñu pare léegi nag moo tax tey gis nga mbooloo mi ni bare yaakaar naa ne mbooloo mi buñ ci génnee li fi gumba ambar indi yaakaar naa li ci des aussi du bari quoi loolu liggéey boo xam ne yàgg naa ko liggéey te bésu bu fi organisé gis naa ko organisé bopp quoi meeting wala dara ko mu téyewoon samay nit rek toog ak ñoom di leen jàppale di waxtaan ak ñoom di leen sensibiliser pour bañ aussi ñu dem feneen la mobilisation bi ñu def moom bon parti bi génne na ay moyens RDL yeesal mu gàncax gi génne na ay moyens dañu génne ay moyens tamit xam nga moom du doy surtout parti boo xam ne man nit laa koo xam ne aussi dama lay wax rek loo def baax na ko soo defee jox ma lu ñu jox pour ne parti bi lii la dégagé li ci def ma làmb sama foofu xool samay am di jàmm ak ñi ma mën a jàppale ba bi réussir loolu moo tax affaire bi réussir ñu tey xam nga tamit da ngay am ambition gis naa ne moo daan fa parti bi RDL yeesa parti boobu avenir la te moom aussi politicien la politicien la boo xam ne aussi vraiment nit ku baax la xamaa Moustapha bi ñuy mooy ñu ànd d'abord nekk benn ndax sama rakk suñu kër bii ñuy wax ni ci mën naa wax ni ci la yow ba Pape aussi sama rakk ñoo naan ànd depuis booy quoi man ma yar leen kon donc kooku sama rakk la sama rakk la ndax ñu mën a ànd su ko bëggee man amul problème booy xool bi xale la xale la cadre la su ma discours dégg li ma ko wax la ma ko wax mooy Moustapha Diop sama rakk la ñu war nañoo mën a ànd liggéey pour RDR Yeesal am doole fii ci département de Mbacké rawatina nag ci commune